ba mu xoolee commentaire yi ba ma xoolee commentaire yi gis naa ni gis naa ñu ëpp ci ñuy commentaire ñu naan jaarama macha allah cey bay faal jàmbaar yaa ngi ñi commentaire ñu ci ëpp di tagg Baye Fall quoi non ñii quoi ñii xoolal ñi ok journée ah ok nee na journée zikr la woon xaw ma ne journée journée zikr la woon ah comme loolu tax ñu wane leen ah léegi mbokk lan mooy Baye Fall nañ jàngat lan mooy Baye Fall Baye mooy dañoo tënku ci Baye Fall dañoo tënku ci ku ñuy wax Ibra Fall neenam ci seen wax ñoom ibra faal du julli du wor yalla moko teggil bu deewee dug aljanna ñoom bay faal yi ba ñu ñëwee moy ñoom ñi nga xamne ne dañoo tënku ci ibra faal ñoom ba ñu ñëwee ñoom ñu na ñoom comme que dañoo tënku ci ibra faal duñu julli duñu wor li moy bay faal nena ñoom seen way kañ yi dellu daawul julli daawul woor comme ñoom it duñu julli duñu woor mbokk yi lii mooy Baay Faal léegi mbokk yi ñii julli ñi boole nañ leen seen biir ku dul julli doo woor jullit ñi jël nañ leen boole leen seen biir tey ba mu xoolee commentaire yi ak seen journée zikar yi boo xoolee commentaire yépp quatre-vingt pour cent yi ay jullit de ñëpp dañ doon bëggee jaaraama cey góor yàlla yaa ngi nii akasa cey jullit dëgg yaa ngi nii bay faal mooy doo julli doo koo xam ni islaam considéré wu ko koo xam ni bokkul ci diina lislaam lu tax bokkul ci diina lislaam ndax ku dul julli doo wóor yéefar nga amul benn jullit bu ci wuute du nekk fii di indiwaat aay yi ak xadis yi ndax jullit ñu ngi koy xamee ci julli jullit ñu koy xamee ci julli jullit bu julleetul nekkatul jullit moo tax Abu Hurayra mu ne ñun fenn dong lañ daan tàqale nit ki diggante diinam ak islaamam mooy julli bu julliwu rek yéefar mu ne ñun saxaaba yi yonente bi sallallahu alayhi ne alahdu lazi baynana wa baynakum as-salaa fa man tarakaha faqad kafara kolleer bu nekk suñu diggante yéen mooy julli ku ko bàyyi yéefar la yonente bi moo ko wax ah bayfaal bayfaal nee na yonente bi la mu wax teguwul fenn la yàlla wax ci alquran ne ku dul julli yéefar la teguwul fenn ñu ne ñoom am nañ droit bañ a julli am nañ droit bañ a woor fan lañ ko teg nee nañ ca kañu jokk du aaya de bay faal foo teg sa ñàkk julli indiwul aaya foo teg sa ñàkk woor indiwul aaya lalala wax mu ne la noo kama jokk muy Ibra Faal daawul julli moo tax man du ma julli la hawla wala quwwata dëkk boo xam ne nee nañ quatre-vingt-quinze pour cent wala quatre vingt dix pour cent wala quatre-vingt-quinze ay jullit lañ boole nañu ñu dul julli ci diine boole nañu ñu dul julli ci diine ba ñoom Baye faal kuréel ba ñu bokk seen xalif bi nee na ñoom dañoo am jagle nañ leen bàyyi ak seen jagle dañoo am jagle ba ñu julli maanaam yàlla moo leen jagleel ba ñu julli ba ñu julli moo leen jagleel ba ñu woor bu ci kenn wax nañ leen bàyyi ak seen jagle xalif bi foo ko teg tegu ko fenn wax la nii rek bu dem indiwul aaya indiwul xadis te yàlla wax ci alquran ne yàlla ak malaaka yi dañoo xool waa safara ñenn ci waa safara ne maa salakakum fii saqar lan moo leen yóbbu safara ñu ne lam nakum mina musallin daawuñu julli lii dama koy répété di ko répété parce que la répétition est pédagogique parce que lii mooy li nga xam ne moom lañuy ñuy jànkonteel bayfalisme doo julli doo woor doo liggéey dangay ngay mànjaal te doo salaa sala waxoon ni loxo buy joxe moo gën loxo buy nangu Baye du julli Baye lu ko def yéefar dafa bari Baye lu ko def yéefar dafa bari benn Baye Fall dafa weddi alquran nu mu weddee alquran bu dul julli du woora nu mu weddee mooy lan mooy nee na yàlla wax ba mu wax ni dee leen julli dee leen woor loolu amul njëriñ amul amul benn sens ñun. bu ñu neexee ñu weddi alquran bu ñu neexee ñun ñu bañ a julli ñu bañ a woor te bu ñu deewee ñoo gën kadul julli ak ka dul woor xoolal nu ñu weddee alquran benn bay faal dafa weddi yonente bi nu mu weddee yonente bi yonente bi salaa sallam moo ne kóllëre bu nekk suñu diggante ak yéen mooy julli ku ko bàyyi yéefar nga mu ne diggante nit ki ak muy nekk yéefar mooy mu bàyyi julli bay faal nee na yonente bi la nga wax teguwul fenn sànni nañ ko fële ñun am nañ droit bañ julli baña wor woor te bu ñu deewee dugg aljanna bay far fan la nekkaatee yeufër moy julli bi nga xamanteni moy deuxième pilier wu l'islam islam 5 piliers la 5 piliers yo yëpp faaw mu mat ben bu ci manké do nek julit 5 piliers yoy ñaarel bi ginaaw ñaari baat seede ñaareel bi mooy lan mooy taxawal julli bàyyi Faal bi nee na mën duma julli dafa mel ni kër gi ñu ne kër gi lu ko téye mooy 4 wala 5 wala 6 amul